dafa am koo xamante nii faaw ma gërëm ko gërëm boo xamante nii amul app parce que li ma defal amul app te nit la boo xamante nii ci ñaari fan laa ko xam mu tudd ba nekk Tëngéej doon benn jeune entrepreneur bu gëm boppam et gëm dëkkam di liggéey teg ci di dimbali ñu bari yàlla dafa def bi ma ñëwee deux mu ñëw kër gi seet si ma ñu toog waxtaan ci suba sa mu taal otom ñëw fekk ma ci kër gi ne ma jógal ma ne ko fu jëm mu a ma nañ dem Touba yóbbu ma directement ci sëñ Abdou Karim Mbakke borom ma Karimor ak laa c'est la première fois ma dem fa. durant toute ma vie. daan naa dem Touba bien avant mais mosuma woon a dem Ndindi mosuma woon a am maxaama teg bët sëñ Abdou Karim mais moom jox na ma maxaama boobu te yàlla rek tax te séentuwu ci dërëm waaye yàlla suñu borom def nag sëñ Abdou Karim Mbàkke doon koo xamante ni li ñuy wax ci moom lépp dëgg la parce que weddi gis bokku ci ñun bi ñu demee këram mu def mu def ñaan ba pare daf nañu yéen ñi toog ni kaay leen man ak Bamba ak suñu copain bi ñu àndaloon ak yeneen ñaan ñi àndaloon ñun ñëpp ñu ñëw toog ci kanamam Bamba bi ma àndaloon daal di ko ne sëñ bi ku tedd ki mu ne ko waaw mu ko kii de mooy Pam njaay bi ngay dégg mi ngi doog a jóge kaso mu a ma ah boo yow yaay pap mu ne ma ah yow yaay pap ma ne ko waaw mu ma dékkal say loxo ma ñaanal la ma dékk samay loxo mu ñaanal ma ba pare woo benn jëwrinam mhm. ne ko yóbbu leen ci saal bi nekk ci biir nga berndeel leen kooku yóbbu ñu ci saal bu nekk ci biir bu ñu kilim defar ko ba mu jekk mu teg ñu fa ñu toog mu indil ñu ay michi indil ñu ay fruits indil ñu lu nekk ci àdduna mu indil ñu ko vraiment maa ngi koy gërëm gërëm boo xamante ni amul àpp moom sëñ Abdou Karim Mbacké yàlla na yàlla suñu borom bi yokk leeram leer gi nga xamante ne moo nekkoon ci waajuram ba muy fallu li mbàkke mi nga xamante ni moom la ñëpp a yaakaar mhm. yàlla na ko suñu borom dolli ci moom boole ko ak moom li mu àndal yokk ko maqaamam yàlla suñu borom mën na ko yàlla na ko yàlla defal amiin yàggal ko fi barkel ko boole ci ak mboole mbàkke mbàkke ak bépp bépp bépp bépp bépp sëriñ boo xamante nii mi ngi yeewoo bépp kilifa diine boo xamante ne mi ngi yeewoo fii ci senegal moo xam nga sant mbàkke moo xam nga sant si moo xam nga sant ñas moo xam nga sant laay ñëpp maa ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk ci fa nga toog yal na yàlla suñu borom bi yokk la te barkeel la di ñaanal bépp jullit mm-hmm. yal na yàlla suñu borom bi yokk bépp jullit te barkeel leen ñaanal réew mi yal na fi yàlla suñu borom bi teg loxo yal na fi yàlla suñu borom bi teg loxo ba réew mi bañ a yëngatu bañ a jañaxu yàlla suñu borom mën na ko yàlla na ko def ci bark Seydina Mohamed Bamba maa ngi koy sant sant bu amul àpp di ko gërëm. parce que defal na ma loo xamante ni bu ma demoon tey jii ba toog pour bind livre moom daf ciy bokk. waa am na ñu koy laaj sax ndax mën nga bind livre ak yu ni mel. incha allah rabi loolu lépp dana am.